إلا الله لا إله إلا الله باي برخاما وصلى الله ما دام صفاتي ساتي برخام وصلى الله ما دام صفاتي ساتي برخام باي الله أصلي أصول من بني أدنان برهم كولا لا إله إلا الله ما على أزل أصول من بني أدنان برهم كولا لا إله إلا الله لا باي برخام أنوف الخلق مالو في الناس سفير الله برخام أنوف الخلق مالو في الناس سفير الله بين أنت حسن من كل مقوف القوس برهم كولا لا إله إلا الله باي برخام لا أنت حسن من كل مقوف القوس برهم كولا لا إله إلا الله باي برخام بدات المرخ برخام بإسن ربي برخام badaatul marxa barxama bi isni rabi baay fa sawka fii ka barxama habibullahi barxama kawla laa ilaha illa allahu baay barxama fa sawka fii ka barxama habibullahi barxama kawla laa ilaha illa allahu باي برخام سكور قالس الأغمال والأخوال برخام سكور قالس الأغوال والأخوال باي يلد جنب لا في سلا علي سل قلب برخام كولا لا إله إلا الله لا باي برخام يلد جنب لا في سلا علي سل قلب برخام كولا لا إله إلا الله لا باي برخام قسوء من سجاياك قياس خلق برخام قسوء من سجاياك قياس خلق بر با إله خلق أتاك سمام الكون برهمك ولا لا إله إلا الله لا باي برخام سمام الكون أتاك سمام الكون برهمك ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 waltaxtufi bi nazratin taati lana bi zafar <coughs> mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di di leen ziyaare di leen nangul seen ziyaare ci bés bu màgg bi nga xam ne àddina bi yépp foo dem tey ñu ngi koy màggal te dara taxul ñu koy màggal lu dul waa ju baax jooju nga xam ne moom lañu yàlla indil muy xéewal ñeexal lépp comme ni ku ko yàlla waxee ci xàqam arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin wàccew la lu dul ni rekk da nekk yërmande ñeel mbooleem mbindeef yi mbooleem alam bi moo tax ñi ko gëm ñi ko gëmut ñi ko xam ñi ko xamul ñoom ñëpp ci ndimbalam rekk ci lañuy dund sallallahu alayhi wa sallam te mënuñ koo ñàkk xam sax tey mooy bés yu bi nga xam ne ci lañuy fàttaliku juddoom bi nga xam ne bim ñëwee ci lañuy libéré dagg mbuumi jaam yi ay gënante ci xeet mu jël ko teg ko fële ne kenn gënut kenn yéen a ngi gënantee rek ci ragal yàlla yaa ayyuhan naasu inna xalaxnaakum min zakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaa'ilan li taarafu ey nit ñi man maa leen bind yàlla moo wax ci diggante góor ak jigéen muy aadama ak awa wa jaalnaakum shuuban wa qabaa'ilan di taarafu ma def leen ngeen di ay peuple peuple yooyu ma def leen ngeen di ay famille yu fasantikoo ngir lan ngir ngeen xamante di jëflante jëflante yu rafet di dimbalewante rafet jukko loolu mooy li nga xam ne moom lañu digal te yonent bi sax loolu la ko yàlla taggee mooy jukko bu rafet ki nga xam ne nag moo ñu indi loolu dëgg-dëgg war nañ di ko fàttaliku war nañ di ko fàttali nit ñi war nañ di julli ci moom comme niñ ko yàlla digalee war nañ di ñaanalante war nañ di ko ñaanal war nañ di fàttaliku sax ay saxaabaam yi nga xam ne ñoom ñoo àndoon ak moom di di di di pour humanisme humanité taxaw ba nga xam ne ku xool sa morom rek am nga bët boo ko war a xool muy yërmande ak mbëggeel waaye warta doon bët boo xam ne mbañeel ak soxor loolu la kooku nag nga xam ne moo ñu indi loolu dëgg-dëgg jar nañu fàttaliku ko moo tax euh, ki nga xam ne mooy bu Cheikh yi mi nga xam ne tagg yu rafet yi nga xam ne tagg nag ko dangay gis ne foo dem ci àddina bi ñu ngi koy jàng muy burda burda bi nga xam ne soo ñëwee Madina moom dañuy tëjee suñ gàmm soo demee ñu ngi ubbee suñ gàmmu jàng alxuraan ak mawlid bi nga xam ne waxam waxi cheikh bu seyruñ mu ngi ci waxi cheikh ibrahima mu ngi ci waxi bët di bëddi bët bëddi mu ngi ci mu seet ay borom xam-xam yoo xam ne bàyyi daf ko jël ràbb ko ci la ko ràbb def ko ràbb bu rafet daan ñu ko wéyal su gàmm gi desee fukki fan ba bi bési gàmm gi di ñëwee mooy comme li cheikh Mouhamad Lamine di def nii guddi gu jot suñ jullee gee ci jumaa ji moom ak mbooleem dëkk bi yëpp nga xam ne soo doy nit ku am yëg rek danga yëg ne dëgg-dëgg ki dem ba ràbb lii ci mbëggeel ak ci xam-xam am na lum jëflante ak boromam ndax eh, soo demee sax ba ci woy wi danga nga gis ni mu ko ni mu ko tëggee soo ko déggee te xamoo li muy wax sax sa yaram dafay daw ndax soo demee da ngay gis ne mu ngi tagg yonent bi mu ngi dem baan lii saadatin minizim ax daamum fawqa jiba in lam akun minum fali bi xubbim izn waja wa bi jaayim wa bi zim tayib lana ajal xaya watim lana bi xayriya man laa lana rabb siwa تهنية ربي بمن حتي شفي بمن تخل بدي abri bi moom mali nga gis ne yëg-yëg boobu mu am ton yu wax ji jugee ci xol jugee ci xel jugee ci xam fu mu ko waxee rek soo dowut sax ku bokk ak moom religion da nga yëg ne wax ji fu foor ci leer gu foor la jugee muy Cheikh Ibrahim Cheikh Ibrahima moomu nag mooy ki nga xam ni moo jël woy Cheikh bu sayru yi boobu bu sayru yi nag li tax mu mel noonu ba mën a am loolu Cheikh Ibrahima ci boppam wax nañu ko ndax euh, bu sayru yi sëriñam moo doon abul Cheikh abul euh, Abbas el Marsi kooku moo doon sëriñam te kooku dafa jeexoon ci yonent bi jeex boo xam ne dem na sax ba ne bés bu ma toogee une minute wala une seconde boo xam ne dama xool gisuma yonent bi rek dana génne sama bopp ci mboolooy jullit mi kooku nag mooy sëriñu Busayri moo tax Busayri war mën na mel noonu war na def tamit lu mel nii waaye Cheikh Ibrahim ñes nag radiyallahu anhu bi mu ñëwee ñoo ñëpp dafa génne seen valeur dafa génne seen gëdd ba nga xam ne ci lañ leen gën a bëgg ci lañ leen gën a xam moo tax wëy yi sax mu ngi ko jël ràbb ko ci biir euh, mawlid gi mawlid googu nag mooy bési tay bii boroom mawlid googu tamit mooy yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne Cheikh Ibrahim daf ko joxoon léppam dem na ba ne sax mu ne yonent bi mu ne wowa ak lii wa sara bi wowa diini wa janaani wowa ak lii wa sara bi wowa diini wa janaani mooy sama lekk mooy sama naan mooy sama diine mooy sax sama aljanna jeex bi mu jeex ci yonantu boobu nag moo tax sax mu ne woon man nag permettre ma kenn nit mën na am lu ne ci àddina bi ma bàyyee la ko waaye li nga xam ne duma ko permettre kenn mooy ku ma gën a bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu feeñ na ci liggéeyam ak feeñ na ci jëflante li ko yonentu jox ba nga xam ne dafa dem ba defa niroog moom parce que soo bëggee dara fii ak jeexoo ci ba mujj di moom rek bëggagoo moo tax benn bés am benn géwél bu fi ñëw bu amoon xam-xam bi mu ñëwee di ko seetlu nekk fi ay fan di ko topp suy dem jumaa jaag suy wax ak suy jàngaleek yooyu yëpp mu gis ko seetlu ko ni muy ndekkee ni muy naanee ni muy jëflanteek nit ñi sëriñ bi jugee ci jumaa ji jëm ci kër gi rek mu koy xool di ko xool moom yàgg rek mu ne ko wallaay sëriñ bi su yónnantu bi su ma amee loon xaalis doo fi jugee mukk te fayoo ma ñu ne ko lu tax mu ne lañuy wax ca moom yëpp mu ngi ci waa ji kooku moo sedd niroo boobu nga gis ne yonent bi sallallahu alayhi feneen mu ngi ciy wax mu ne fa in tasaluni an habibi wa sayidi fata habibullahi mal xayru mawama dafa naa am na fii ci kii mu ne soo ma laajee kan mooy sama maître kan mooy sama sëriñ kan laa bëgg duma la tontu ci lu dul ne rek du kenn du kenn ku du taaxaa sallallahu alayhi wa mu yónnantu bi kooku nag mooy ki nga xam ne dem na di liggéeyal yàlla ak yónnantu bi ba yàlla jox ko lim ko jox nga xam ne àddina yëpp janoo ak moom nga xam ne bërki démb rekk benn taalibe mu ngi jóge Siin day tukki lu bari mu ne man dama foogoon ne Cheikh Ibrahima Afrique rek la am waaye dama dem ba Chine ma fekk fa ay chinois yu jeex ci moom doon ay taalibeem ba pare respecter norme yi nga xam ne moom la teg ma ne cey kii daal ndekke daal amut amut kem amut fu mu fu loolu mu doon seede bu rafet te kooku du boroom xam-xam sax commerçant la buy dem rek waaye ci àddina sooy dox di jëflante ak nit ñi yàlla dina la won ay tegtal yoo xam ne danga ci xamee lu bari ci àddina moo tax euh, bàyyi moomu suñuy fàttaliku yonent bi dana il faut ñu fàttaliku ko parce que moo ñu ubbil buntu mbëggeel moo ñu ubbil buntu ngëm yàlla moo ñu def tamit ñu nekk ci peuple bi waaye ñi bokk ci tànneef yi nga xam ne peuple bi dañ leen tànn ci jukko ci ngëm ci taaru taaru ci jukko taaru ci melokaan taaru ci wax taaru ci jëflante ak nit ñi loolu yëpp ci biir diina ji la ba pare daf ñu ko jàngal ba nga xam ne dëgg-dëgg amuñ dara luñ ko fay lu dul ne rek dañuy sant yàlla am dem na sax ba benn bés mu ne yàlla dafa wax yonantu ne ko mu wax yàlla mu wax ne in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkumullah képp ku bëgg yàlla rek topp ma soo ma toppee rek yàlla bëgg la mbëggeel gi soo ko bëggee ba topp ko su boobaa dangay am ci jukkoom yi moo tax jaamu yàlla yi dañ daan toog di jéem a li ñuy liggéeyal yàlla ñu jéem a xëcc nit ñi ci seen bopp pour ñu puus leen ci lu baax ba daan nañ dem ba dinañ leen dinañ leen charmer pour puus leen ci yàlla ak yonantum bi moo tax am na wax yoo xam ne wax na ko yoo xam ne am na ay ñoo xam ne amuñ xam seen xam-xam soriwut ñu ngi koy critiquer te xamuñ lan moo tax mu wax ko bërki dem sax maa ngi dégg benn waaye buy toog di di critiquer di wax loolu xam naa téeréem yi kiiwut noonu mu ne Cheikh Ibrahim dafa wax ne waman yuhibbu nii waman yaraan yi fii jënnatil xuldi bilaa bu képp ku ma gis bëgg ma da nga dem aljanna bien sûr parce que dawut ne moom moo lay dugal aljanna mais yow yaay dugal sa bopp aljanna parce que bëgg nga koo xam ne soo ko bëggee danga ko topp te soo ko toppee da nga def li muy def te soo demee defee li muy def rek da nga aljanna mooy sa place moo tax benn bés wax na ko ci benn ziare mu ne maa toog naa di seet di seet ma gis ne daal man ak yéen samay taalu bi aljanna ngeen jëm nit ñëpp di yuuxu naan waaye mu ne déet def leen ndànk waxuma ci sama bànneexi bakkan mais damay wax wax joo xam ne dama dama basé ci alquran ndax mu ne alif laam miim zaalikal kitaabu laa rayba fiihi hudan lil muttaqiin allaziina yuqiimuuna salaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun wallaziina yu'minuuna bimaa unzila ilayka wa maa unzila min qablika wa bil aaxirati hum yuuqinuun ñi nga xam ne dañoo topp ndigal yàlla gëm alquran di julli di oor di saraxa di def lépp loo xam ne yàlla daf leen ko digal su boobaa bés penc seen fay mooy aljanna te mu ne man ci loolu rek laa leen oo ci loolu rek laa leen dugal te loolu yëpp gis nañ ko parce que daf daan julli bët bu set jugee néegam jëm ci jumaa ji fajar tisbaar tàkkusaan timis gee am na ñoo xamee sax suñ ko buggaan a gis dëgg dañu nekk ba heure yi julli jot rek ñu ñëw rek taxaw il faut mu génn jëm ci jumaa ji soo demee soo ko toppee da julli parce que dafa julli ji noonu mu doon def nga xam ne yëpp ci ndigal yàlla ak yonent bi la ko tegoon moo tax mu ne nag loolu seen fay mooy aljanna mu ne yëpp nag ci alquran laa ko jëlee te man alquran mooy moo mooy jàngal alquran moo tax nit soo demee bay seet nit ki li tax mu wax da nga war a seet wax ji lan la wund ak lan la ci jublu parce que su fekkee ne danga ne man fecc feccikat la wala théâtre kat laa wala nangam nangam yooyu yëpp moom la nga on nit ñi ne leen ñëw leen ngeen bëgg ma su ñëwee foofa rek nga leen di yóbbu ki nga xam ne daf ne man yàlla ak yonantu bi julli ak or ak def lu yàlla digle watu lim tare ci loolu laa leen oo ñëw leen ngeen ànd ak man ñu bëggante dem su boobaa soo ko defee rek foofu rek nga leen di yóbbu moo tax tey soo ñëwee ci dëkk bi nit ñi li ñuy xëccoo mooy kenn ku ne rek mu ngi jàpp ne maa gën a bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu rek lañuy ñuy bàyyee moo tax jukkoo lislaam dafa ñëw pour defar jukkoo ñëwut pour wan nit ki nit ki ne ko révolutionnaire nga walla guerre kat nga yaa fi dàq tiire fetal walla yaa fi dàq wax lu ñaaw yooyu déedéet l'islam dafa ñëw pour rafetal sa jëmm ak sa kàddu ak sa jëf ba nga xam ne ku la gis rek su la nawee ci jukko yooyu rek moom tam dina wàll nit ñi jukko bu baax moo tax ci alquran sax yàlla wax nañu inna allaha laa yughayyiru ma bi qawmin xataa yu xayiru maa bi anfusihim peuple yi mu ne du ngeen soppeeku mukk lu dul ne yéen yéen a soppi seen bopp waaye yow soo demee ba majeur même balaa nga am sax nga gis sa yaay sa papa ñu ngi julli ñu ngi oor topp ndoor gi nga leen topp ci ngay jaaree ba nekk euh, jullit ba mel ni ñoom donc li nga xam ne da koo bëgg rek di ko topp su boobaa rek njëriñam dafay ñëw uy si la Cheikh Ibrahima nag radiallahu anhu comme Moussa Sène ni ko laajee gàmmu su jotaan nan lay mel ni muy mel mooy léppam dafay naayis xoola photom bi xool ko moom su waxul sax photo bi mu ngi wax ak yow di wane rafet nit taar bi rafetee noonu la lay jukko bi jëfa jëflante ak nit ñi suñ la ko wanee noonu la rafetee xam-xamam dem ba nga xam ne bokk na ci organisation yi l'islam bi ci àddina yi yëpp mu bokk ci membre fondateur yi nga xam ne ñoom ñoo doon taxaw di tëral nan la def pour dimbalee lislaam amut xuloo amut xeex amut dara am na benn bés ci rafet jukko am ay gaay yu fi ñëw ay waa ibaadu ibaadu rahmaan biñ ñëwee ñëw waxtaan parce que moom daf daan recevoir ñëpp jullit ak ku dawul jullit yëpp parce que moom nit nit la xam nga nit d'abord da ngay nitee avant ñuy dem ci religion wala dara sax da nga war a nitee pour wane ne nit laa su boobaa nga jëflante ak nit ñi ci seen seen nitee su boobaa da nga mën a jëflante ak ñëpp parce que yonent bi ci boppam sallallahu alayhi wa sallam toog na ci penc mi am benn euh, chrétien bu gaañu ñu koy yóbbu di ko denc bi ñëwee ñu ngi toog nii bi gaa yi jubsee rek mu jóg taxaw rek ne jóg leen gaa yi nekkoon ak moom ñëpp jóg ñëpp jóg taxaw biñ taxawee gaa yi dem ba romb mu toog am ko ne ko ah yaa rasulullah kii bokk leen diine bokk leen dara ngay kii comporté woon nii mu ne ndax du ma màggal jaamu yàlla bu yàlla bind mbindeef moo xam ne yàlla moo ko bind ndax duma ko màggal xam nga foofu jullit su ci xoolee rek dana gis ne entre jullit ak jullit sax pour affaire yi animosité yooyu yàlla daf leen a digalul ñu koy jëflante wala ñu koy waxlante ñaaw jukko rek lay wone waaye pour nga rafet jukko ki bokkut ak yow religion sax da nga ko war a woon jukko bu rafet moo tax comme li ma wax nii am ay gaay ay ibaadu yu ñëw bi ñëwee mu teral leen ñu lekk naan teral ñu waxtaan yépp am ku ne ko ñii de dañoo contour sëriñ si dañ leen a contour ñu ngi def pexe pour jëlee leen fi mu ne ah suñu fi jëlee rek ñu xam ne suñ doom suñu ay doom ñoo ñu fi jëlee suñu ay doom ñoo fi jëlee seeni baay seeni maam toog fi am ku nekkoon ci mbooloom mi ne hee kii moom laa doon seet pour topp ko moom ci la demee ànd ak moom nekk taalubeem ba léegi njabootam gaa ngi fii te lu rafet jukko rek la ko wan donc koo xam ne da nekk missionnaire ci diine wala ci lu mun di doon sa mission na ko wane ci jukko bu rafet ci kàddu yu rafet wala tujaadilu ahlal kitaabi illa billati ahsan la yàlla wax mu ne yonent bi ñi nga xam ne bokk leen diine ci borom téere yi la jiitu woon bul dàggasante ak ñoom du dul ne rek ci wax yu nooy wax yu rafet parce que su du dara nit rek la loolu mooy lislaam mooy jukkoo loolu lañ xam ci baax mais fi mu da ngay gis jukko yi dañoo yàqu ba nga xam nit ñi dem nañ ba ñu bari xamatuñ fan lañ war a taxaw ci wax ak ci jëf am na góor ñoo xam ne xamatuñ nan lañ war a traité jigéen seeni soxna am na jabar yoo xam ne tamit xamuñ nan lañ war a traité seen i jëkkër ak seeni doom te yooyu yëpp su normal yi rek kër ga day neex yooyu yëpp dafay neexal dund moo tax jéem a rafetal jukko du def rek lu du ne lu baax nga ci jëlee mais am na góor ñoo xam ne léeg-léeg ñu fase jigéen fekk jigéen ji dafa am bërëg te loolu yàlla diglewu ko xanaa sooy fase jigéen sax da nga xaar ba mu bëri gëm wàcc nga wax seet def nii waaye yooyu yëpp dara yooyu nag ci jukko yi yonent bi indi la ba nga xam ne vraiment jar nañu koy fàttaliku jar nañuy fàttaliku ay jukkoom jar nañuy jéem a roy ci ni nga xam ne noonu la daan def waaye ñaaw jukko foo ko fekk rek ci loraange rek lay yóbbu doomu aadama bi yàlla nañ ci yàlla musal am na am na benn bés kenn ci saxaaba yi Maas ibnu Jabal di jiite nit ñi ñi muy jiite ay mag ak ay xale ak ñëpp ci mu taxaw rek jël alif laam mim zaalikal kitaab saar bu gudd boobu nga xam ne kenn xamul soo koy commencé kañ lay jeex mu jullee ko nit ñi taxaw lu yàgg waaye bi mu paree yonent dafa mer ne ko bu defati lii ndax am na yoo xam ne dafay dàq nit sax ci diine parce que am na ñoo xam ne ñu ngi feebar mënuñoo taxaw yenn taxaw yi ñii ay mag lañ xam nga nit ku taxaw di julli di koo xam ne day miir léeg-léeg day miir nga taxaw téye ko fa lu ma trent minutes wala lu ko ëpp moo tax yooyu yëpp pour defar rek la woon moo tax yooyu nag li tax mu xew am na ku ne sax Maaz ibnu Jabal li tax mu jàngoon loolu mu ne daf doon dafa bëggoon yonent bi jàngale moo tax mu feeñal loolu pour mu wax ci bi mu ci waxee ñu xam ne nag mun nga koo def de waaye seetaan ñi ngi koy defar mën nga koo jullee mais seetaan ñi ngi koy jullee yooyu yëpp ci rafet jikko rek la ci la bokk moo tax ñu ngi sant yàlla di leen gërëm di wax ne Cheikh Ibrahim daal rafet bi nga xamee daf ko rafet ci jukkoom noonu la daan kontaanee mu feeñ ci kanamam ak ci jëfam nit ñi koy roy ba léegi ñu ngi ci di profiter rek di wax ne suñ mbokk taalibe yi am na ci léeg-léeg ngay dégg ay yoo xam ne daal jarul dégg daal nit ki sooy liggéey danga nga xam ne da nga liggéeyal yàlla te liggéeyal yàlla àndut ak bàkku àndut ak wanew àndut ak di di xeeb sa moromi jullit àndut ak di suufeel keneen di yëkkati sa bopp wala ngay yëkkati keneen di suufeel keneen yooyu yëpp ci di la bokk yal nañ yàlla matal parce que Baye daan na wax ne am na ñaari muqaddam yu ma a am problème fii ba songoo seen taalibe yi songoo waaye bi mu ko jotee dafa mer daf kontaan lu toon daal waaye dafa leen oo ne leen su ngeen jubóowut fii ak 24 heures maa ngi leen di avertir leen wax ne su ma deyee fii ak vingt 24 heures rek yéen a ma rey biñ ñëwee di wax ak moom naan ñu ngi jéggalu mooy leen déedéet. yéen ñaar yéen a seq lii dem leen ngeen wax ci dama leen bind lettre bu leen ma tontoo ñëw rek bokkatu ak man di wax waaye da ngeen may répondre par la lettre par ñi ñu xam nga ñoom ñaar boobu lañ jubóo parce que dañoo toog ñoom ñaar naan ni ñuy bindee lettre bi ban terme lañ war a def xam nga déjà jubóo nañ psychologiquement atte na leen ñu créer lettre bi ñëw mu jéggal leen après la vie continue noonu lañuy ñuy jàngalee waaye jàngale doo taxaw rek di yuuxu di xupp nit ñi di sàgg nit ñi loolu du jàngale te koo ci jàngal koo ci yar su màggee ci sa kaw la jëm waaw koo ci yar ci ñemee wax lu ko neex walla def lu ko neex su màggee rek yow pareel xam ne dana essayer doole ji nga ko jox fu mu koy utiliser yàlla nañ ci yàlla musal bàyyi nag moom mu ngi woon ni tàllal loxoom nañ ko wax lu leen neex nee na sëriñ Aliou ne ko ñun nañ nangoo nekk sax ay mbalit nañ ñuy wax lu ne waaye ñun nañ jëf rek di xool yàlla rek di xool yàlla ci jaam yi di liggéeyal yàlla ak yonantu bi rek waaye bu buñ toppante ak nit ñi parce que suñ ko defee rek danañ indi ñaaw jukko te suñ indee ñaaw jukko rek su boobaa waxuma li ñuy yàqal suñ bopp mais nit ñi roy ci ñun sax danañ leen yàq bés jukko bu ñaaw rek moom lañuy ñuy jël rek di ko joxe te loolu yëpp euh, moo tax mu ne woon man lu nekk wax nañ ma ko lu ibrahim Ibrahima Niass biir na léegi wax nañ ma ko parce que xam nañ ne góor du biir waaye su doon jigéen sax danañ ko tuumaal ne ëmb na wax yooyu maa ngi gis fi mu ne mu ngi tasaaroo journaliste yeeg ñëpp a ngi koy wax waaye baax na jàngale la mu loolu moo tax. ci man sama ni may inspiré woon comme dama am habitude di bind ay livres comme Baye le défenseur de l'islam imam de la fayda ak yooyu yëpp loolu ci laay inspiré woo ci jukkoom ba xëy benn bés rek créer rek ne bàyyi la solution boobu tamit gis nga waxum amut Sénégal mais fi mu ne àddina bi yëpp ñu ngi naan bàyyi la solution waaw fi ma nii sax man daanaka xamatuma ci ñeneen na ko yore du ci liggéey te loolu tamit lu baax la waaye dëgg-dëgg bàyyi la solution parce que wax na ko parce que mu ngi nii mu ne aw jëde nii xàkkan li jabal gasri Dieu na m'a créé que pour résoudre les problèmes parce que il m'a confié le secret des secrets ñun nag xamoon nañ lan mooy secret waaye le secret des secrets boobu moom moom mooy faraay ba téenee moo tax ku ñëw ci boom rek da nga xam dëgg-dëgg li taxoon mu naan le secret de secret ñu ngi gërëm 2S di gërëm El Hadj Ndiaye ak soxnaam di leen gërëm yéen ñëpp Ibrahima Diané waxtu ne muy ngi liggéeyal pay bi su amee congé sax mu ngi liggéey suy liggéey tamit mu ngi respecté heure yi liggéeyam te fu mu dem rek pay bi yëpp léegi ñu bëri bëgg nañ 2S ngir liggéeyam moom ak Moussa Moussa Sène tamit gis nañ compétence am ak yaram ci liggéey bi parce que nit man nga koo laaj li nga ko bëgg laaj te doo ko frustré mais moom ni muy aborder sujet yi question yeeg yooyu yëpp da nga dem ba xam ne vraiment kii xam na li muy liggéey waaye tamit am na fu mu cosaanoo yar éducation dafay feeñ ci doomu aadama gannaaw loolu di nuyu tamit Mbagnick nga xam ne vraiment artiste la ku bëgg lu rafet la même yii nekk fii nii yëpp sax dangay gis ne ñun ñaar ñoo fi nekk di wax rek ba indil àddiyee nit ñi ci gàmmu gi nga xam ne vraiment ñun ñoo ko liggéey parce que man tam domaine boobu dama ci daan liggéey bi may def communication di gërëm tamit Omar Maan Omar moom tam vraiment taalibe la te dafa am ittee moom su wàccee sax heure yi liggéey même dana wàcc fekk dafa war a ñibbi mais ci bëgg liggéeyam day liggéey rek di liggéey këram day liggéey heure yi yi nga xam ne dañ ko war a fay heure supplémentaire yooyu yëpp respecté respecté lu ko ëpp bay ba koy joxe te loolu yëpp bëgg li ngay def rek la di gërëm soxna si bu baax Fatima Fatima Tall nga xam ne tey mooy defe naa yaa ngi fi soog ñëw de ah tey mooy bésam bu njëkk mais yaakaar naa déwén <laughs> rendez euh, ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax ci yaram ak teggin ndax euh, soo bëggee li ngay def rek soo koy joxee rek nit ñi dañ koy bëgg sooy wax wax bu rafet tamit ñi koy dégg dañ dañ koy respecté parce wax su jugee ci làmmiñ comme li Baye de su jugee ci làmmiñ ci nopp lay am mais su jugee ci xol rek direct ci xol bi la jëm moo tax ñu ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm Touré bu 2S moom tam mbokk taalibe la waxtu wu ne mu ngi dimbale moom madam nangu na ko ci ñun madame Ndiaye Touré moom tam xale bu baax la vraiment sama nit la ci xale yi nga xam ne dinaa leen di former. di jëflante ak ñoom lañ waaye vraiment moom tam xale bu yaru la nit ku baax la di gërëm waa 2S yëpp góor ñeeg jigéen ñeeg mag ñeeg ñëpp seen liggéey rafet na waaye na ngeen gën a góorgóorlu rek di nuyu El nag di ko gërëm ci taxawaayam